dès demain, je dis bien, dès demain, à la première heure, avec mon groupe, je vais déposer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Et, et je dis, j'ai discuté avec des collègues, parce que ce gouvernement dirigé par un incompétent ne peut plus continuer à être ici dans ce pays donc je dis bien mes chers collègues Vous ñi nga Je ndax article de la constitution moko Il motion de censure pour ñu troisième session extraordinaire pour que le gouvernement puisse tomber je vous remercie <laughs> <laughs> A, yen wache se, yen wache se, yen seman aboneye nek che se, wak tan len ak sen wache se. waxtaan leen ak seen waa ji parce que nag euh, vraiment seen waa ji dama yaakaar ne assemblée nationale euh, daf ko jàppee ay troupe théâtre yooyu noonu xam nga Thiès dafa bëri yooyu voilà xam naa loolu la ko foog <laughs> asalaamaaleykum sama gars yi maa leen di ziare bu baax a baax a baax. di leen jox seen wàcce waaye di leen dalal seen seen YouTube di leen wax ngeen di abonné di like vidéo yi di leen wax ni maa ngi ànd ak sëñ Moustapha Mbacke di sëtu Serigne Abdoul Ahad Mbacke di ñaankat boobu nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu ngóor yàlla mooy na ko si tawfeex bu baax a baax a baax ku si am jafe-jafe rek da daal di jokkoo ak moom si numéro bu baax bi mais day ñaan tamit day li si xaar ab Abdou Mbow démb taxaw na ci kanamu assemblée nationale xaaju na nee na ñi nga xam ne dañ doon waaja tukki nañu annulé seen billet d'avion yi nañu toog ci réew mi ndaxte day waaj dugal projet de loi boo xam ne day tas gouvernement bu nga xam ne mooy gouvernement wu Bassirou président Bassirou Diomaye Faye te ki nga xam ne mooy le premier ministre Ousmane Sonko jiite ko d'accord léegi nag moom xam naa ne lii yàgg na ko wax quoi. depuis gouvernement bi taxaw depuis nguur gi jot ci euh, réew mi ba léegi moom mu ngi menacé te lii la yor pour menacé ko lii nag lenn képp la ci jublu mooy fi mu toll nii dafa bëgg président Bassirou Diomaye Faye bañ a tas assemblée nationale bi maanaam mu négocier ak ñoom ñu bàyyi leen fi ñoom ñu continuer di dund moo tax ñuy jéem a cabaxal seen yii yii yëpp ay mbir la yoo xam ne maanaam euh, pour bañ ñu tas assemblée bi la rek mais yéen bu leen neexee tas leen. tas leen gouvernement bi quoi voilà bu fekkee parce que loi may na gouvernement bi bu ko euh, ñii tasee président bi yoon may na ko mu former waat xam nga bu doon buñ ko tasee rek définitivement du gouvernement dootul amati mais comme boo leen ko tasee tey ci jour bi ngeen ko tasee président président bi mën naa tabaat gouvernement am defaraat ko ba mu normal waaye léegi tas leen eh, da ngeen a baax rek. yéen fi doon nii da ngeen a dof ci boppam yéen seen xel yee jaxasoo nekkatoo leen fi li ngeen di fàtte seen waa nekkatul ca pale ba ka yoroon big ba nga xam ne moom moo ci doon xool la ko neex mu ko ciy xoos nekkatu fa il faut ñu fëgg leen ay bopp koŋ koŋ koŋ ba ngeen xool ñu ñu wax leen ne leen seen waa ji nekkatul foofu foofu eh, jaxaar fay moo fa nekk fi mu toll nii ah da ngeen lu ngeen taxaw ci seen foofu wa voté boo leen demee xoos mu daal di euh, promulgué après affaire yi jàll noonu non non non daf leen ndànk réew mi nekkatul ci seen i loxo assemblée boobu ngeen fi desee deseeku néew lu mu dee dee fi ak 10 jours moom bu soobee yàlla xoolante leen li ngeen di xoolante. ku ci amoon ab gel ci suuf ba bu ngeen gaaw commencé jëlante ay numéro bu dee foofu ngeen daan am occasion gisante parce que am na ay bagages yu bari yoo xam ne mu ngi xew foofu mais en daal mu ngi noonu voilà yéen nag euh, faaw ñu xamal leen ne leen réew mi nekkatul ci seeni loxo te assemblée nationale bi di si quelque jours dootul nekkati ci seeni loxo boo leen yaakaar ne mën ngeen teg benn pression gouvernement bi fi nekk ba tax ñu teggi virgule ci lii ah awma ci yaakaar te gëw ma ne noonu lay demee. li ngeen bëgg mooy ñu teggi tànk euh, parce que gis naa ñoo xam ne ay chroniqueur lañ ñu ngi jéem a genre dugal genre débat yu mel noonu mooy euh, premier président bu bu tase assemblée bi pour organiser waat ay élection budget bu mu koy defee nangam nangam euh, li gënoon mooy mu wow député yi négocier ak ñoom comme ça ñu mën ko jàllale ay loi ba après xawma décembre nang na bañal président bul négocier ak benn député tasal lii tasal assemblée nationale bi bu dee da ngay organiser ay élection boo yoru xaalis nga wax ñu ko ñu cotiser jox la nga organiser ay élection parce que nag fii façon cotisation bu ne cotiser nañ ko fi ay millions ay milliards cotiser nañ ko fii pour parti bi kon nag yow jàppal ne sa ginnaaw na bandang askan baa ngi sa ginnaaw peuple baa ngi sa ginnaaw tasal assemblée nationale bi jële fi ñii parce que ku mel ne Abdou Mbow lenn mooy tax mu mën a dugg assemblée nationale mooy ay liste nationale yooyu noonu lay duggee moo koo xam ne mënul gañe bureau de vote am mënul gagné koñam muñu munul gañe biir këram kooku bu demee si ay élection du ko gagné te Macky Sall dégg ngeen ko démb euh, lettre bi nga xam ne moom la génnee moom nee na moom Benno Bokk APR moom c'est fini moom moom moom rey na leen ba jaale leen voilà kooku moom dut moom mooy def ay effort pour nuy dundalee partem parce que parce que mu génnee na si xelam xool na réalité politique bi am actuellement nii ba mu leer ko ne partem bi c'est fini parce que doful dina jàpp ko nag moom moom yéenay dof dof lu mais moom doful xam na réalité politique bi nekk Sénégal xam na nu politique bi di doxee xam na ne actuellement nii jeexal ngeen moo tax moom mu ne c'est fini pour APR léegi nag comme yéen jàpp ngeen ne mën ngeen a continuer di xoq talaate di nappaati naan da def ay loi nangam nangam dañuy tas gouvernement bi na noonu di si quelque jour yéen di ngeen xam yéen lan ngeen ci réew mi ñu dem ay élection nag ngeen xoolaat ba xam yéen <laughs> bari na ñoo xam ne fi mu nii dinañ nam micro yi de micro yi assemblée nationale yi dina am ay député yu koy namm lool lool lool lool lool waaw mënoo leen xuppee nag ba duñ ko tas bu soobee dañ koy tas ku nga gaañu. ko yaakaar euh, mën nañ ne Macky acte na la moor de Benno Bokk euh waaw wax dañ leen di liiral rek communiqué bi euh, dañuy ñew rek ci ni dal di muy information bu ngeen am la en direct ñu leen kay dal di jox euh, muy euh, gannaaw mes chers camarades damay lire lettre bi Pa Moussa <coughs> le 24 mars 2024 le Sénégal a ouvert un nouveau chapitre politique en réalisant la troisième alternance de son histoire en consacrant ce changement les Sénégalais ont porté au pouvoir un nouveau régime. Or, Benno Bokuyakar, notre coalition, vit euh, depuis euh, plus de 12 ans au service du pays. Jamais alliance politique n'aura tenu autant au Sénégal. Jamais elle n'aura gagné autant de batailles politiques remporté autant de victoires, et ce, à toutes les élections, quelle que puisse être leur nature, leur importance et les circonstances dans lesquelles elles se tenaient. À ce changement s'ouvre maintenant devant nous une nouvelle page politique. J'entends ça et là, cette requête pressante de certains de nos camarades qui nous demandent de nous, de nous réexaminer, de nous réorganiser pour mieux engager les défis du moment. En effet, beaucoup se demandent s'il est encore pertinent de garder Benno Bokuyakar dans sa formule actuelle et continuer comme si de rien n'était. Même si euh, tous ne sont pas de cet avis, nous devons penser et accepter que nous devons aller au-delà de Benno Bokuyakar et nous projeter maintenant dans le temps nouveau de l'action politique. Il nous faudra donc, euh, tirant les leçons du verdict des urnes, inventer un cadre plus, plus approprié, adapté et ajusté à nos impératifs de l'heure